ba maaleykum ba nga ñëw toog nii. Badiane xam nga ne da nga am jom man dama laa bàyyi bàyyi ma. kay toog nii moo gën si yow. léegi toogu ma ah toog force ma ah yow. démb baa reer nga rek démb baa mujjee ngaa reer. man man laay reere man laay reere. booy ñuus ñoo ñuus ñoo ñuus ñu ba ñu bëgg a dee nan la ñuy reeree waxoon naa la ko yaa gën a xam ne Modou Lo moo mën Ama da kaa doo rokkos ko rokkos ko ba muy bëgg a dee yaa ko tey man xam naa ne moo dox moo ñu man waaye dereet moo ma tooñ moo tax ma faral pikin waaye xam naa ne moo dox soxor na de gis nga ni mu ko doyoo gis nga ni mu ko doole rokkos yi ma rokkos fii keroog moom la Modou loo rokkas Ama jaana ka rokkas rokkas ba ñu àtte ko ay musuma gis lii lii Modou Lo nag dafa simple takkul dara Modou Lo mel melu ko dafa ñëw wan ko ne dama lay jàngal bëre Ama dafa diis à part poids moo ko sonal dafa diis yow maa bëgg morom sax xam nga ama góor yàlla la de bu fekkee am na fi jox ñu isaab pour ngeen xool jox jox nañu Isa Pouye. Aj Sar. Aja Ouz. jàppandi be. Victoire bi. jàppandi be. Ama rek lay bañ a dégg kii sab rab sa tagin gétt ama lay bañ a moo tax ñus na leen ba ngeen duul ama yee lay bañ moo tax ñus na leen ba ngeen duul ama yee lay bañ moo tax cottu na leen ngeen duul ama yee lay bañ moo tax ñus na leen ba xale bee dowaat Ousmane xamal la gisek seki mbax sabar jabar gisek seki kata raskin salkin raskin salkin raskin kisakit salkin raskin salkin gasakin yaa mën nag yaa mën ala yaa mën dara du xew waxoon nga ko ba jël waxoon naa leen ko moo du xarañ loo du man du du yemay eh da leen di ñus bañ duul du ñeexum ñebe kenn laa wax. jógal fii Ama tamit du petit poids kenn. Eh, dama lay dama lay ñuus ni mu doon ñuusee Ama de. léegi nag léegi nag laa lay wax yow da yow dafa am looy wax yow. daa bis. da ngeen ñoo bett. da ngeen la da ngeen ñoo bett. parce moo loo moo loo Ama dina ko doo ba toog ci fi def. histoire lamb yéen a fi def ñu noq leen ba seen mbokk daw jël si leen di aate. musul am musul am. musul ba pare li ma ci naqari Pikine lañ ko defee. <laughs> Modou Lo ne nii xolo ñoo xolo wengal ñu ne Modou loo takkul. Modou loo bëree bëree ba ci farataab sunna ci charia Modou Lo jël mystique tegoo ko fend indi yàlla. Modou Lo dem Màkka naan labbayka laahumma labbayka labbayka laa sharika laka labbayka ñëw toog man ma la koy fay yow. soo daw si. sa waay moi je suis fier dans la Pikine. je suis fier dans la Pikine. mais ñun fier fier dans la parcelle. sa sa eh boo ma waxee sa kii nu mu tudd fi dëkk Caaroy Géej li muy doon kàkkatar di di di fecc naan nii naan nii kon it Issa dina leen noq ba ngeen ma judd. de xam ah Balde góor yàlla. xam nga lu ma neex ci Modou Lo Modou Lo dégg. te fier d'être Parcellois. dafa ni unité. waxal unité. unité 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. 21 wàññi ko wàññi ko eh, wàññi ko du 21 kat. ah ka bari mbooloo. yaa ngi daw jël mais gis nga Modou Lo mbooloo woon mais. réew non mbooloo bi. ma ci neex Malick Koumba. du 21 ku kat. du du 21 kat nga ko. ah la ko dóor. ñaar fukk ak ñaar waaw. moo tax ñuus ko ba mu duul. waaw bëgg naa laa ko mere. waaw xam nga def xaal bi xaalu syndicat bi. waaw faa ma yaakaar ne danaan affaire maa la ko ma laa koy ma jag jag gi mu yenu xaal bi nekkul tell si suuf. waaw. <laughs> lenn ma neex. le premier janvier incha allah moo gooñaa mu defaat ko nii. Ah. bon loo. Eh. bo booñaa. booñaa moo engagé la. loolu Pikine du ko nangu. nga ne Pikine du ko dox te du ko nangu. moo loolu na def caqit bu ko bàyyi dinañu ñuus ñun ñëpp lay ñuus. kon nangu ngeen da leen di ñuus. aduna tas sama waay bul ko wax ne tali baaxul waaye nit yéen ay ne tali